amu fi woon croisement Cambérène jàmm fi amoon ñu dëkk ci jàmm oto yi di jaar ci jàmm camion yii ngeen fii gis daaw ñu fi jaar alors dañu toog ba ci yàgg ñu daal jël ci zone bale la ca ginnaaw zone euh, euh, euh, zone maraîchage bi zone ñaay bi fee ca ginnaaw cetul lag ba ñuy suul lag bi di ko rey di fa def ay entrepôt di fa garder ay marchandises yoo xam ne port lañ koy jëlee conteneurs yi fi la ñuy jaar ak camions yi conteneur tay bu fi daanu tey gis ngeen Carrefour bi ni mu gatté bu fi conteneur daanu tay marché Ocass gis ngeen commerçant yi tok fi yëpp bu fi daanoo ak euh, les chauffeurs les passants tout le monde bu fi daanoo nit ñi dañuy dé il faut arrêter ça dañuy tok ba nit dé ñu doon di commencer nak di jël ay mesures. def nañ fi ay ay ay tableau d'interdiction xey lañu nañu respecté tab euh, ki sa bañ fi jaar fi ay nit la fi dëkk alors camion bi ngeen di gis ay frein la perte xawna naa rey nit ñi fi taw yalla def sutura alors nous les une ñaan autorité ministre de l'intérieur muy ministre chargé des transports nous devons ramener la sécurité au niveau de ce classement là organiser le transport les irréguliers là nous dem beau boo maraîcher alors Dakar Dakar Thiès Dakar mour Dakar Kaolack Beau maraîcher lañ leen des état bi jël disposition créer leen ko les clandos nous leen wutal un garage où ils peuvent s'arrêter prendre leurs passagers dans la sécurité dem sen yon. du ku nek def sa ci ak salam lo am muy sa lor